Rewmi 24 TV dal leen ak euh, jaamu mercredi 6 septembre Mara Niass di marabu boo xam ne rek dafay seet moom Mara Niass bari na rek ñuy wax ne rek moom Mara Niass mii day gis ndax li ñuy li muy wax ñu di ko gis dafay bari lool moom mii di Mara nag daal di nag yëkkati nag ay révélation yu day waar rek daal di koy jëmale ci boppam moom mii di Mara Niass ma ngay xam leen rek daal fi mu toll nii màggal gii di ñëwaat bu fekkee ne fekkee ko rek ñu xam ne loolu la yàlla dogal moom Mara Niass wax ay kàddu yu triste rek daal di koy jëmale ci boppam. ñu bari rek ña ngay duggal vidéo bi di wax ni marañas day tagato mom mamee di marañas ma ngay dal wax ci bopam lo xamné bu ko dégg rek da fay jaaxle lool ci mom mi nga xamné nak nag da doon seetal nit yi tay bi yoon dal dafa mel rek bopam la gis mom mi di marañas di wax ne rek magal gi di ñëwaat dal bu ko fekkee rek baax na waaye bu ko fekkee walit yëkëti ya na ay wax yo ya xamné dal ko ko dégg rek da fay xamné rek ki di dal da fay mel rek koy tagato kon lool la ñu ko ñu bari nak ñi ngi partagé bobé la vidéo nga xamné ki di marañas def na ko rek dal di koy jëmal ci bopam moom moom mii di Mara Niass daal ku seetaan vidéo boobu rek di nga xam ne li mu wax ni daal daal dinay doon loo xam ne rek lu kenn euh, mënutoon naatable la ndax daal dafa mel ne rek kuy tàggee boppam daal